mu tàmbalee ko ak euh, euh, armée beeg général Maguette Ndiaye mi ñu tabbu chef de d'état-major de l'armée de terre mu wuutu fa naataangoom euh, nawleem général Kandé. Ah, général Kandé la fa wuutu ah, soxna Fati moom général Maguette Ndiaye sax euh, cee jamono 2017 2018 euh, moom moo jiite woon force d'intervention bu CEDEAO fële ca Gambie ki mu fa wuutu nag général Kandé moom ñu tab ko attaché militaire fële ca New Delhi ca Inde journal bi di quotidien dañu xam ne ni général bi nag daf ko fas yéene attaqué boobu nga xamee ni. moom moo koy yóbbu fële ca réewum Inde en tant que attaché militaire dialogue national ñu tàmbale ko démb ci wàllub justice ñoom nag dinañu waxtaan seen biir fii ba ñeenti fan ci weeru juin ngir rek euh, xool euh, naka la ñuy jubbante euh, lu bari li nga xam ni moom moo dëng ci wàllub justice bi fii ci Sénégal ci wàllub justice sax ñu wax ci mbirum ba Diakhaté Euh, di activiste boobu euh, bokk ci APR moom nag euh, démb lañu ko génne woon ci cellule am yóbbuwaat ko fële ca dikk ngir interroger ko waaye moom patt bi la maye daal bëggul tontu ci mbirum Ababacar Mboup la sax nga xamee ni Ababacar Mboup bu sax ànd sàmm jikko yi daf ko porté woon plainte pour diffamation moom sax convoqué woon nañ ko ci dikk pour confrontation waaye confrontation boobu mujjut am Euh, mbirum corruption euh, ci diggante euh, doomu Mansour Faye ak ñaari policier police nationale nag addu ci joxe seen i version wax ni yi fi daal extorsion de fonds la am ñaari policiers yi ñoom reconnaître nañ ni jot nañu trois cent mille ci loxoy Aïssatou Faye waaye ñoom nag nee nañ daf leen ko may Euh, direction générale police nag jàpp nañ ni daal agissement yooyu dafa garaaw ba tax na ñaari policiers yi sax dañu leen relever jeexalee ko ci euh, mbirum euh, tiis ak Mbaye Diaye Faye bu super étoile am tiis ak génnum àdduna Euh, yaayam bi di euh, mère Adja Daro Mbaye euh, moom Mbaye Gueye Faye nekk percussionniste super étoile nag yaayam démb ci ngoon la génn àdduna levée du corps bi ñu koy amal ci kanam su 14 heures jotee lay doon maanaam 2 heures fële ca juma bu Fass laata ñu koy jébbal boromam ca sëkk yu Yoff soxna Fatou. ñu koy ñaanal borom bi xaare ko aljana te ñu moom Adja Daro muy wéyjuru Mbaye Gueye Faye di ko jaalewaat bu baax moom mii ñàkk way juram euh, di Mbaye Gueye Faye 7h33. Mm-hmm. Euh, soxna Fati. Mm-hmm. Euh, di ko masawu di ñaan mm-hmm. yàlla suñu wayjuru jigéen woowu tamit yàlla xare ko àjjana. amiin yaa rabbi mais le président de l'union des magistrats du Sénégal. oui mooy UMS. waa UMS. démb ci en pleine assise lañ ko woo. ni ko soxnaam dafa wàññeeku. donc muy Fat Ndiaye. dëkk Thiès. ma xam ko lool. miin ko lool Chimère aussi di suma xarit. ñuy nekkandoo Mbour pendant la période des kankourans ñooy ànd. bés bi le jour moo ci moo ci am na yenn kaay bu ngi noonu donc. Euh, euh, moom daal bàyyiwul soxnaam mu feebar. dafa jekk rek ñu ne ko sa soxna wàññeeku na. noonu la jógee ci assise yi dem fële nga xam ne moom moo di Thiès. tey jii lañ koy denc à à onze heures. Mhm. Euh, donc ñu koy ñu koy jaale moom. tamit masawu bu bu baax. voilà barki démboo Njaay rek moom ak suma soxna ak suma famille ñoom ñoo nekkoon. ci benn takk doon waxtaan. moo tax mm. démb madame Thianoum jooy na jooy yu metti ndax xaritam la aussi quoi. donc ñu koy jaayale Chimère Diouf di ko jaale tout la famille. man déjà bu ma jógee fii sax foofu laa jëm ci enterrement. ci enterrement les magistrats. Mm-hmm. le voilà ñu ngi leen di jaale seen soxna soosu génn àdduna. nga eggal suñu njaal ah Chimère. grand bu moom mm-hmm. am taxawaay bu am solo rawatina jiite union des magistrats bu Sénégal. c'est un coup dur mm-hmm. mais sunu borom moom bu soxlaa comme on dit ñëppay ñàkk ñu mm-hmm. masow ko ñaanal soxna si yàlla yërëm ko xaaree ko aljanna amiin yaa rabbal Adja Daaru Mbay aussi parce que mm-hmm. ñun ñëpp dégg nañ tur bi déjà te gisoo ko ak Mbay Jeey Fay fu mu daan taxaw aussi ñu gis taxawaay bi nga xam ne taxaw na ko ci soxnaam moom it ñu jaala ko baax a baax way mu jigéen Euh, beneen Daara Mbaye hmm. euh, waykat nga xam ne yaayu Sidi Samb yaayu Sidi Samb moo gën a fës ci bëtu nit ñi hmm. kii euh, beneen soxna la di yaay Mbaye Gueye Faye bu Super hmm. Étoile voilà mi ngi noonu précision yi am na solo 7h35 jot na ñu très gaaw très rapidement ci xibaaru biti réew yi tey nag euh, sud africain yi ñoom dañoo fas yéene dem ca mbañ gàcce ya euh, tànn ñi leen fas yéene teewal ca pencum ndawi réew moom muy élection législative. élection législative yooyu nag euh, ca la muy débouché mooy fal njiitu réew foofu ci Afrique du Sud comme ni nga ko waxee Fati euh, tey la ñuy euh, voté ANC bi nga xam ni nag depuis apartheid ba mu jeexee ba léegi ñoom ñooy jiite réew mi bi yoon nag nee na ñu seen i gagné dara wuuru ci Cyril Ramaphosa mi nga xam ni moo ko jiite nekk président moom ma dafa bëgg toogaat ku mu fa wutu woon nag moom di Jacob Zuma bëggoon na bokk waaye. waaye mujjul bokk moom mi nga xamee ni dafa dem créer euh, partem te bokkoon ci ANC euh, ba léegi ci euh, xibaar peine de mort ci nu mu maanaam anam yi mu taxaw jamono ji ci àdduna àdduna bi Amnesty International di ci génne rapport ci kanam lay doon waaye nee nañu nag dafa yokk bu baax fii ci Afrique maanaam daal pratiquement dafa triplé te nee nañu Somalie nag moom mooy dëkk boo xamee ni fa la ñuy gën Euh, dañuy jeexal xibaar yi ci euh, Haïti euh, foofu nag fàttali na nañ fa premier ministre bu bees di Gary Koni moom nekkoon premier ministre ci réew moomu ca jamonoy 2011 2012 la woon li moo gënoon a fës ci xibaar. jërëjëf Cheikh Tidiane tënk nga ko merci beaucoup 7 h ñu xool.